ñu ngi sant yàlla bu baax euh, di gërëm waa jàmmalaay dëgg yëpp di gërëm encore ñi taxaw nii tey ñi nga xamante ni mooy jeunes yi nga xamante dañoo taxaw seen gox ni mu waree mu doon loo xam ne ñëpp war nañ ci mën a copier et suñu teewaay fii nag mooy li fi fël muy ab yeew bu fi gën a bi ci guddi yàlla def plus de peur que parce que mënoon na fi def jéeya mais yàlla sutural nañu ba gars yi maîtriser nañ ko ba rey ko gis nañ image yi mi ngi fi li ko waral nag mooy tey euh, takk gi nga xam ne moo nekk ci suñu ginnaaw nga xam ndox mi mun nañu wax ne tantane mi ngi fi nekk fii bougé wul yàlla def ren inondation yi metti ndox mi yéeg waxuma a tàgg rek mais kër yu bëri aussi mi ngi ci ndox ba présentement nii ñun en tant que municipalité ma bokk ci nekk ci nga xamante ne moo géré la pluie wa inondation ci commune bi depuis au début ñu ngi ci ak ñu ngi gis ñi ñu àndal di pomper on essaie de trouver des solutions par rapport aux maigres moyens de la commune mais nous une nañ l'inondation, on inondation dafa jaaxal sax état central waxuma la commune dañuy lancer un appel au président de la république de lancer au ministre de l'Intérieur, de lancer au gouverneur et tout les services compétents yi nga xam l'inondation. dañuy dox appelé inondation Malika plus particulièrement fii di jàmmalaay de ñu wax parce que c'est difficile parce que tey population ñu ngi ci insécurité bu ñu demee ba ay yeew di gën di dugg ci biir nit ñi di dugg ci biir kër yi kon donc foofu sécurité amatu fa kon donc il faut ñu dimbale le plus rapidement possible bassin yi nga xamante ne dañ koy defar euh, Promoville kon donc ñoom it nañu def lu gaaw ci liggéey boobu parce que tey ndox mi mënuñ am amul fan fu ñu ko yóbbu

xool nañ euh, superficie bi nga xamante mooy concerné bassin bi ñoom jël nañ loolu ñoom bu ñu xese ba jël loolu ba def lee travaux li ci des lépp ñoo nañ mën a récupérer waa seen i kër parce que ndox dootu fa taxaw ndox mu ñëw ci biir bassin bi lay dugg te dañ koy sécuriser te alentour yi aussi dañ koy def ay pavé bu defee espace aussi espace vert lay doon au profit de de de cette quartier kon donc loolu daal mooy la meilleure solution bi nga xam ne moom la ñuy xaar te nu mu gën a gaawee rek ñun xeeb nañu ko. yeneen kër yi nga xam bokk ci emprise bi bés bu ñu defaree bassin yi aussi ñoom dañ mën a récupérer waat seen kër mel na mu meloon incha allah